up what's up yeah ñu ngi ziar di màggal di ndamoo di tiitaroo di bëggee bu wér a wér a wér a wér a wér dina wax ni man la seen mbokk patriote compatriote sénégalais mu laa moor gën ñu ngi ziar ñëpp ku ci nekk sa trop sa sant yes sir briquet Ahmed ku naan Assane Sall briquet almet fëna essence taal briquet almet fëna essence taal briquet almet fëna essence taal briquet almet këpp essence taal briquet almet këpp seen oto yi taal briquet almet wër seen kër yi taal briquet almet fëna essence taal briquet almet këpp essence taal briquet almet sub seen oto yi taal briquet almet ne fépp tàkk jëppët briquet almet ne fépp tàkk jëppët fire fire ne fépp tàkk jëppët murder murder ba Macky daw waxeet fire fire ne fépp tàkk jëppët murder murder ba Macky daw waxeet briquet almet ne essence taal briquet almet ne essence taal briquet almet këpp essence taal briquet almet këpp seen oto yi taal briquet almet wër seen kër yi taal fire fire ne fépp taa fi daw waxee fire fire ne fépp taa fi jëppee murder murder ba Macky daw waxee briquet almet këpp essence taal briquet almet Voilà, c'est un star. Briquet, briquet, briquet, Fire, fire, fire. Murder, murder, murder. Hey, yeah. ñu ngi ziare ñëpp ah. ku ci nekk sa tur sa sant di leen màggal di leen ndamoo leen tiitaroo di leen bëggee bu man la seen mbokk sénégalais Mollah Morgun maa ñëwaat di waxtaan ak yéen. Euh, gis ngeen situation politique bi gis ngeen atmosphère Sénégal bi xol yi neexul doomu aadama yi am na lu leen naqari ci doxilinu réew mi ci tolluwaayu réew mi léegi nag ñun ñuy nekk ci réew mi di dund wala suñuy waajur nekk fa di dund wala suñuy mbokk nekk fa di dund wala mu am suñuy mbokk yoo xam ne ñu ngi ci armeel ya Sénégal ñu ñëpp a ko bokk bi waxtu 2012 jotaan ba mu jote ñëw Macky Ablaye Wade bëgg a forcing toogaat fa wala mu bëgg fa teg doomam Sénégal yëpp dañoo génn xeex ko mu tàmbale ci assemblée nationale ci la lu bari créé wu fii li ci mel nii m li ci mel nii euh, benn Bokk Yaakaar et cetera et cetera ñëpp ñi nga xam ni tey ñoo newoon ci nguur gi nekkoon nañ fa gisoon nañ Mariam Faye sàll ak tisetam bu weex mbubb maa ngi toll fii ndax baat bi mu ngi toll fii gis nañ ci Macky sàll mu yenu ab mer gàddoom gis nañ ci Moustapha Niass mu yore ak kabaam am ngandam maami xeer gis nañ fa ki nga xam ni moom mooy euh, euh, mambay ñaa mu taxaw ci giri ak ti setam bu furi donc doomu aadama yooyu ngeen gisoon yépp tey ay multi milliardaire lañ toog pale njaax di woon ay baadoolo de la pire espèce tey ñun ñu buggoon changé ñoom ñu mujjee toog defar seen àdduna yor ay kër yi rempli d'argent yor ay junni junni terrain yor ay kër wala yor ay li nga xam ni moom mooy euh, ay compte bancaire yi nga xam ni ci paradis fiscaux yi dem miina fa ay milliards donc ñu mun a ñu toog nag regretter loolu jàpp ni 2012 bu ñuy fal yaakaaruñu woon ni dinañ fal doomu aadama yoo xam ni ña doon téye ci grille ak seen mbubb yu furuya ña par joxe ndox ma ak seen mbubb yu seen kolu mbubb yu xotteeku ña nga xam ne ñu ngi yaroon ay maanaam euh, mergaddu et cetera ak ki yore ab kaba ñooñu tey ñoom ñoo partagé ak seen i mbokk yeneen yi nga xam ni tekkiwuñ dara defuñu dara yoo xam ne tey ñoom ñoo ko partagé li nga xam ni moom mooy gato bi ñu jël Sénégal def ko seen i gâteau di ko partagé ñu taxaw nag ci muñ ñoom muñ bu doy waar ñi def fi sept ans def fi cinq ans muy ñaari mandat consécutif maana ñaar ñu toppante article bi waxul ñaar yu toppante tolloo daf na ñaari mandat nul ne peut plus de deux mandats consécutifs mooy kenn mënul def plus ñaari màndaa yu toppante Macky sàll bind ko wax ko livre bi boo leen demee bind na fa ne mandaam jeex na def na ko audio wax na ko ay nitam wax nañ ko donc am na loo xam ne buñ toogee ba jamono ji ñi ciy werante naan dina defam du def loolu moom du Macky Sall ñun ñii ñoo saaga suñu conscience ñun ñii ñoo ñàkk jom ñun ñii ñoo ñàkk fayda ba nga xam ni bukki bu yabee gaynde ca doxin bala buñ demee ba Macky Sall bind ko wax ko toogaat ba suñ jon yàlla tey ñi ciy werante di ci débat ci télé yi mooy problème bi c'est sénégalais problème bi c'est pas Macky Sall ñun ñii la ñun ñii Macky Sall wax li muy wax ba pare di dayaat suñu digg bopp ñu nekk di werante kooku peuple bu baax peuple bu am jur ñu baax heure bii waruñu nekk ci werante ñu nekk moom mooy pare na wax na ko ci livre bind na ko def na ko audio lépp li nga xam ni moom maanaam yàlla ci boppam da wax gars yi di bind kii moom dafa wax bind dafa wax bind def na ko vidéo euh, euh, audio def na ko ci livre wax na ko donc jeex na takk kooku kenn mënatu ci werante c'est fini affaire Macky Sall deux ou trois c'est fini te dee mais du fi tooga loolu mooy dee nga rey ñu wala ñu rey la mais doo fi toogaat loolu c'est clair et net maintenant wax jooju nag Macky Sall waxoon dis na ci moom lool waxloowul kenn troisième mandat yónniwul kenn pour mu wax waxu troisième mandat Macky Sall ci ballon de sonde la nekk ballon de sonde ay nitam dañoo bénéficier wu ci alalu askan wi lekk xaalis bu bari moo tax ñuy wër ci média yi ak a def ay conférence ak def ay séminaire wala di def ay meeting déguisé nekk fa di wax waxu troisième mandat mais Macky Sall ci gémmiñam musu ko wax te musu ko sant nit parce que doful jinne jàpp ko xam ne nii réew mii bés bu fi waxee troisième mandat njabootam duñ fi toog ay mbokkam duñ fi toog moom du fi toog dina taal réew mi ba mu tàkk jëppét te kenn ku bokk ci moom doo mucc kenn koo xam ne am na njaboot bu bokk ci ñoom doo mucc loolu moom xam na ko moo tax fooyewu ko kafeewu ko du ma ne wii du ma ne foofu la yem donc ñay wax waxloowu leen dañuy wax parce que seen intérêt la dañuy wax pour mun fa toog parce que sa waay douze ans de règne du caaxaan douze ans de règne xale judd na ci ba jàng ba yi mun a wax xale judd na ci raam na ci dox na ci jàng na ci xam na ci IOA dem na ci ba cm walla wala CM2 douze ans douze de règne ñu tegal la ay plaatu milliards kooku boo ko fa bëggee jëlee ci baadoo la boo xam ni en 2012 amul lu mu lekk en 2012 amul lu mu naan en 2012 dafa am problème mu fay luwaayam en 2012 dafa amoon problème mu dugg ci taxi kooku boo ko fa tegee muy sàcc yaakaar naa ni boo ko fa buggee buddi du ay négociation du ay waxtaan da ko fay fekk buddi maamam sànni ca xaj boo deful loolu du fa jóge ndax baadoo la xamul njoowaan boo koy njoow day wàññi ay coowam donc ñun peuple sénégalais bi dañoo war a préparer wu xam ne ay baadoo la liñ ko seqal ñoo xam ni ay waxtaan du leen fa jële ay waxu euh, justice du leen fa jege jëlee ay waxu négociation du leen fa jële préparé nañ leen depuis des mois ne leen sénégalais yi bët bu rusul toj sénégalais yi leen da ngeen a am ay nawle da ngeen a am ay nawle da ngeen a am ay nawle yu leen gënul ci ndey gënuñu leen ci bàyyi ñu leen wër ñëpp yéen a ci nekk peuple bu musul taxaw résister ba jëlee fi président yéen yéen gàcce buñ koy wax Afrique yéen a ko teg Afrique gàcce buñ koy wax Afrique yéen ko nar a teg Afrique kese leen fa ay dëkk ñoo xam ne ñoo gën a yàgg Macky sàll gars yi dañ leen a buddi waxeet te dañ toog nañ fa mel ni guy mais bés bu peuple bi déterminé woo taxaw dañ leen a buddi sànni ca xëcc l'Afrique vous écoute l'Afrique vous regarde ra l'Afrique seen bët yëpp ñu ngi leen ko teg yéen a war a taxaw naw la woo nit yi nga xam ne ñëw autour de vous ñoom def nañ ay révolution ba jëlee fa ay président ba wàcce fa ay président yéen it ngeen wane li nga xam ni ëllëg si biir bu Afrique taxawee ndi wax ni ñoom mus nañu changer régime ci résistance mus nañ changer régime ci révolution yéen ngeen taxaw ne mus nañ changer régime ci révolution mus nañ changer régime ci résistance te waxtu wi nag moo jot pour ñun ñu yéegal suñu drapeau ci les pays révolutionnaires du monde ci les pays révolutionnaires de l'Afrique et surtout de l'Afrique de l'Ouest bi nga xam ne presque quasiment ñi fa nekk ñëpp révolution seen population révolution woon nañ révolution woon na woon révolution euh, révolutionné woon nañ ba jëlee fa seen i ñu wàññi tuuti wax ji tey jëf ñu xam fan la importance nekk te bàyyi ay détails bàyyi ay détails je pense que waxu Yérim Seck war nañ ko mën a tegee nële c'est pas ñëpp xam nañ ni bu doon livre boo xam ne génn ñëpp xam nañ ni ay fen lañ ko tabaxee ay fen lañ ko bindee ci ay kàcc ak ay esprit politicien politicien lañ ko bindee maanaam yaa derrière Amadou Ba yaa derrière les politiques yaa derrière le le gouvernement donc euh, loolu leer na nañ ni te ñëpp xamoon nañ ni tamit ab pervers la narcissique narcissique ba pare ñëpp xamoon nañ ne aussi un détraqué sexuel moo tax ma koy woowee sex sex yërim sex sex yërim sexe foo ko fekk gémmiñ gi day sex ab sexe moom moom miibam sexe la sex yërim sex voilà wala sex irim sex foo ko fekk day sex irim sexe irim bi da koy sex donc kooku intéressant wul amul njëriñ livre am intéressé wuñu ñun fu nekk ne dañoo focus 2024 mooy li nga xam ni moom lañ bëgg a xañ Ousmane Sonko mu bañ a dem ci élection yi te tamit ngeen di bàyyi xel ci bu leen nangu diversion dofu leen jinne jàpp leen am ngeen xel luñ leen wax lu dul dëgg ngeen teg ko fa ne ko fa ñu ko ne yàq bu naqari avancé bu leen dara tardel lu tax nag man nag ak yéen mu am benn problème mooy sama niveau de détermination sama niveau de résistance moo xaw a différent ak ñenn ñi te dama koy xam parce que man am ngeen internet ma am internet ni doomu aadama dañuy dem ci ay détails dagg ko ñëw di ma ko yónnee nee naa leen encore une fois pour une énième fois musuma ko ubbi képp ku may yónnee vidéo yaa ngi tardé duma ko ubbi duma ko déglu dara dina ñëw ba dem te duma ci intéressé wu parce que man dama focus ci l'essentiel dama focus ci sama combat ba nga xam ne li ngeen may nekk li ngeen may bëgg woon ay benn waay buy def vidéo du ma seetaan vidéo du ma ubbi vidéo du ma déglu vidéo man dama focus sur l'essentiel nekk ci sama combat gëm ko xool samay principe di ci dox donc kenn mënuma détourner de l'essentiel du ma xool seen vidéo intéressé ma nu muy ñëwee laa koy effacer nu muy ñëwee rek laay def nii ba supprimer supprimer ma ko parce que man sama xeex amul diversion te du ma nangu kenn di ma divertir ci ay détails ci ay pan pour man ku ci nekk am nga sa combat combat ko bëgguma xam ku ci nekk lan nga ne ku ci ne fa nga nekk assuré ko parce que man bu may joué neuf ngay joué deux latéral soxlawuma di ñëw saa su ne pour xam lan ngay joué assuré sa poste ma assuré sama poste nga assuré sa poste kee assuré postam man la ngay joué ci sa poste intéressé wu ma assuré ko de façon je te fais sa poste def fa li la war te soxlawuma nga may yónnee say dribble say technique intéressé wu ma man pour man je te fais confiance teg naa la teg nañ la foofu noonu jouer sa pos matalal sa rôle ba mu mat sëkk man je ba may focus sur l' essentiel loolu intéressé wu ma te du ma ko seetaan te du ma ko déglu lu ma intéressé maa ngi ciy teg samay bët li ngeen di gisee li ngeen di gis maa ngi koy gis donc soxlawul di ma daggal dara di ma yónnee bu daf na intéressé moo tax xooluma ko te boo ma ko yónnee du ma ko xool parce que man pour man toll naa ci xeex boo xam ne am na yoo xam ne amulma taam di leen wax ni xeex bi stratégie la xeex bi dangay xam say ennemis xeex bi da comprendre les aléas de ce combat am na ci biir xeex bi lu ñuy woowee ci biir xeex bi lu ñuy woowee li nga xam ne moom mooy euh, prêcher le faux pour avoir du vrai prêcher le faux pour avoir du vrai gars yi dañ maa xamul ci combat gis nga bu ma ubbee euh, après ñu avancer bu ma ubbee sama ligne bi joxe leen numéro joxewuma numéro pour di jëli numéro man je me demande est-ce que ñi may woo amuñu problème man caaxaanuma ak yéen man ak yéen gaañoo wuñu dañuy xeex gaañoo wuñu gaañoo wu ma yéen wuruma lu ma lu ma neex wuruma ngeen may tagg wala ngeen may jay wuruma dégluwu sama nopp bi lu dégluwuma ko di leen déglu yéen it day leer man je ne suis pas hypocrite je simplement dañuy xeex xeex leen ma xeex appel yi ngeen di def fii du ma ko jël waxoon naa ko duma ko jël arrêté seen woote yi du leen jël te yéen ko Sénégal ba mu wër kër këpp doo leen laajte moo laa wax na ko te noonu laa koy doxalee man du may wax di di di de du ma jël seen i appel intéressé ma li ngeen may wax intéressé wu ma liggéey leen seen liggéey xeex leen seen xeex ngeen ma bàyyi ma ma xeex sama xeex bés dina mus a jot ñu daje. plain yu ma ak yéen affaire de gars yi noonu allo moo laa waa nang dégluwuma leen jëluma leen ñay woote dañuy perte seen temps suba nga nu ko dégg bëccëg parce que mi ngi nii dañuy woote woote woote woote ba tas mi yëpp gis ngeen gis ngeen lu mu du leen jël du ma leen jël du ma leen déglu bu ma leen joxe sama numéro parce que xeex bi foofu lañ dajee dama war a soxla jox leen sama numéro pour ngeen dugg wax seen xalaat ñi ci am chance dugg dugg ñi ci amul chance munoo maa woowaat ba ma jël tant que defaatuma laaj ubbi ko ubbi ligne bi pour nga wax munatoo am possibilité jot ma c'est impossible ci la ma nekk dama ci focus soxla wu may wax ju bari soxla wu ma diversion soxla wu ma flatter soxluwuma dara dama nekk militaire di guerre lijjantiwuma ay inconvénients lijjantiwuma ay après lan la ma mun a jural lijjantiwuma dara dama gëm gëm xeex bi négocier wu ma ci kafuma ci foowuma ci wutuma ci xarit wutuma ci àndoor képp ko soldat jàppale ñoo no aw ma ko jot boobu di déglu di ñi tout ñëpp respect euh, bëgg a déglu monde bi yëpp non taluma ko très sincèrement taluma ko ko aw ma sax jotam loolu mooy un deux donc dans mon combat am na lu ñu woowee prêcher du faux pour avoir du vrai loolu laa def Maham Diallo ba jàpp ko Maham Diallo dañoo toog benn moment mu raar trop sax gars yi di laajte Maham maaxam parce que juge bi nga xam ne moom mooy euh, Hamadi juuf Hamadi juuf moom yóbbu na wax na maa xam ne ko nañu yóbbu dossier bi procès ok maa xam accepté ñu toog di déglu sénégalais yi nan lañuy ñuy réactionné maa xam def tekk ñëpp di laajte maa xam sincèrement mu raar il fallait parce que xam naa ne dañ may déglu bu baax a baax a baax a baax a baax du lu may waxantu ah du lu may waxantu de dañ may déglu bu baax a baax a baax a baax a baax donc il fallait ma prêcher du faux pour avoir du vrai fa maa xam làqatu laa leen di wax fa maa xam dugg laa leen di wax mais munu woon am maa xam bu munu ma koon jàpp laa mais dans le sac tant que moom ci benn jeu donc moo ma xëy ne leen bërki démb maa xam voyagé na mi ngi ci avion Air France xëy na mi ngi dem Paris wala mu def escale mais samay information loolu lépp man maaxam xam laay xeexal maa laa bëgg a jàpp parce que dë dëkk bi yëpp a ngi laajte ana maa xam ana maa xam lan moo tax après Hamady Diouf bu mu waxee moom génnut donc ma jël samay radar sànni leen cité bi nga xam ne mooy cité des magistrats ñu dem fa taxawaalu ñuy xaar maaxam léegi nag maaxam <laughs> dama ko jàpp ci ñaar lu tax ma jàpp ko ci ñaar même tey waroon na dem pour entendre n'est-ce pas euh, moom moo waroon dem pour auditionner Fadilou Keita mais maaxam dafa làqatu maaxam tey dafa làqatu moo le doyen des juges moo qui devrait euh, auditionner Fadilou Keita a été remplacé par le le juge du deuxième cabinet muy Mamadou Seck loolu lépp maa xam mi ngi joué ak man léegi man maa annoncé maa xam mi ngi France te maa xam newul France maa xam mi ngi Ndakaaru Ndiaye Jal Diop Dakar mais comme man dama mi ngi France maa xam jàpp ne kon nax na ma moom kon fu nekk ni ñëpp jàpp nañ ni maa xam a ngi France léegi maa xam bu génnoon tey di auditionné ki nga xam ne mooy Fadilou Keita dañuy jàpp ne maa xam kon mi ngi Sénégal maa xam toog fu mu toog yónnee kii di Mamadou Seck mu dem di entendre parce que maa xam mi ngi xeex ak man ci maayan bu ma yónnee sama radar yi jàpp nañ maaxam xam démb maa xam nekkul France sama gars yi ils l'ont laay wax moo la on a aperçu aujourd'hui vers 17h30 voire 18h maa xam Diallo vêtu d'un démb jàpp nañ maa xam ndakaaru Ndiaye Dial Diop vêtu d'un mocassin laveur de voiture ki s'appelle Lo démb maa xam génn na jël otom yóbbu ko ci laveur de voiture ba bu tudd Lo mi nga xam ni Lo la sant muy raxas euh, otom waaw donc euh, mi ngi nekk vers le terrain de football Sénégal Japon Sénégal Japon démb maa xam génn na démb da doon jaay la kaña jàpp naa ko démb parce que ba ma waxee ne nekku fa ngeen di werante fii la nekk nekkam fee boobu man maay prêcher du faux pour avoir du vrai comme nee naa maa xam dem na rek maa xam il fallait mu génn ma yónni samay radar ne leen leen kër ga taxaw leen topp leen ko parce que maa xam mi ngi foofu il faut ñu xam fan la maa xam nekk donc démb maa xam génn na yóbbu otom di ko raxas fële nga xam ni mooy euh, euh, ban garage raxas oto bu tudd benn waa ji fa nekk tudd sant loo foofu la dem situé vers le terrain de football Sénégal Japon voilà ne euh, ne on vous enverrait euh, des photos ou bien une vidéo qu'on a déjà pris prouvant qu'il est bien là waaw et demain même endroit d'accord donc maa xam ba mu raxasee otom ba pare dem na jëli ñaari doomam yu jigéen fële ca école primaire bu tuddu flamboyant flamboyant école primaire bu tudd flamboyan démb maa xam dem na euh, jëli moom moo nekk flamboyant moo nekk cité Cyprès 1 en face de la mosquée euh, Abbas Sall démb maa xam jàpp naa ko fa sama gars yi ñu ko toppee ba mu raxasee otom dem na fële nga xam ne mooy école flamboyant jëlee fa ñaari doomam yu ndaw yu jigéen ñi ngi ko téye ni mi ngi leen téye ni xale yi di cëppi-cëppi maa xam jàllo mu mel ni ko weedi mel ni ko dof sama gars yi ñu ko topp donc maa xam ma nga ndakaaru njaay jal jóob ba mu gars yi bi ñu ko toppee mu dugg ci école ba ñu génn ak ñaari xale yi doomam ya xale yi dem ci ginnaaw dugg ci oto ba ah ñu départ oto école boobu nag moo tudd école flamboyant mi ngi nekk cité Cyprès en face de la mosquée Abbas Sall pas loin de l'hôpital Samy wa maa xam mi ngi woon foofu voilà maanaam euh, pro euh, kii raxas kii bi moom euh, oto ku doon raxas oto bi Maodo la tudd waaw euh, ki nga xam ne moom mooy yore propriétaire euh, du lavage moom moo tudd Lo ah chez Maodo ok voilà foofu la demoon raxasi otoom donc maa xam newul Canada newul France man maa def euh, prêcher du faux pour avoir du vrai comme maa xam daf may déglu il fallait ma yóbbu ko France pour maa xam génn jàpp ne rëcc na ba mu génnee fekk na man yónni naa ko tous mes éléments topp nañ ko ba bu mu demee école flamboyant dafa jëli ay ñaari doomam yi jigéen génn nag ñoom xale yi cëpp cëppi noonu mu téye ci loxo xale yi dugg ci ginnaaw muy dawal otom donc euh, maa xam ma ndakaaru njaay jal jóob voilà donc euh, comme ni leen ko waxee lava lavage moom il se trouve à côté du euh, RMS lavage foofu la quoi à côté maanaam juste situé sur le mur de terrain football bi Sénégal Japon donc foofu la raxasee démb otom après bu mu demee jëli ñaari doomam yi jigéen yooyu école flamboyant école primaire ba maaxam mi ngi ndakaaru njaay jal joo ba jubba donc jàpp leen loolu wax leen ko ñëpp ñu doon wër maa jàpp naa maaxam laa mais main dans le sac demul France duggul avion loolu lépp j'ai prêché du faux pour jàpp maa xam la mais dans le sac maa xam ma nga ndakaaru njaay jël jóob di def yëfu maa tayam di fen tey demul sax pour auditionner Fadilou Keita parce que dafa bëggoon wane ni moom mi ngi France maa xam waaye fen jàpp naa la maa xam yaa ngi ndakaaru njaay jal jóob di dégg lépp lu ñu wax comprendre lépp lu ñu wax donc jàpp leen ni maa xam newul Canada nekkul France ma nga ndakaaru njaay jooju nga xam ne jàpp nañ ko la main dans le sac kon maa xam ma nga fa di def yëfu imbécile yëfu kat ba léegi ñu jàll ci leen di leen xamal ni encore une fois ngeen bañ a perdre ci déglu ñiy nekk fii di leen wax naan ay affaire u justice dama bëgg ngeen xam ni Macky sàll doxul justice waxul waxu justice justice intéressé wu ko ngeen bàyyi ci xel Macky Sall lenn moo ko yitteel mooy nu mu yóbbee Ousmane Sonko procès bu ko yóbbee procès dina ko fa toroxal ba mu torox tot maa leen ko wax te waxoon naa leen lan nga xam ne préparé nañ ko aji saa pour mu wax ko dina toroxal Ousmane Sonko ba mu torox tot xam ngeen ni Macky Sall du jël ay millions di ci préparer saal di jël ay millions di jox deux cent million mu jox ko maa xam jàll jox ko ay terrain moom la ko mujjee neexal semaine bi passé deux cent millions ak ay terrain xam ngeen nii Macky Sall du jël deux cent millions di ko jox maa am jàllo ak ay terrain nii di jël ki nga xam ne mooy Hamadi Diouf di ko teg foofu pour simplement di wut lu leen neex yéen di jël Badio Camara di ko def président conseil constitutionnel pour wut lu leen neex kon loolu ku toog di leen wax waxu justice wala lii jaar na yoon wala tampon bi gauche lañ ko war a def wala droite xam ngeen ni kooku wérut wala kooku daf leen a yàq il faut ngeen focus.